Heavyweight.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 ko ci ginnaaw duusu fam bi bu tàmbalee sangu rek mu yéeg di ko yërndu te nee nañu fam boobu mu ko doon def dafa am boroom kër <laughs> ma ne nag boo demee waa ji célibataire la ma ne waa ji pikin texaco la doon jógee tox ba tuuba caaroy ngir rek yërndu si faam bi <laughs> waa kii moom lu ko dal te këru fam bi moo seetlu ci ginnaaw duus bi gis ñu tegale fa ñetti brique mu soupçonné ne am na ab maniaque sexuel buy yërndu jigéen ñi sangu ci duus bi ci la ko waxee famille bi ne nañ ci def attention te bàyyi ci xel ba noppi nag ci la jëlee décision ngir opérer ba xam birig yooyu kan moo ko fa def ak lu def ko fa ci la ñu tegee seen plan pour jàpp waa ji ci ëllëg si waa ji dellu si bi fam bi duggee di sangu bi fam bi duggee ci douche bi di sangu waa ji di yoot yéeg ci birig yi tàmbalee yërndu soxna si ma ne en pleine ak ma ne en pleine action lañ ko ne niib ma ne en pleine action lañ ko ne niib diri ko ci biti waa quartier bi génn sifaay ko sifaay yu metti <laughs> ma ne kii kay dañ ko waroon a takkal jabar gannaaw ba ñu ko yóbbu hôpital faj ko la ko police teg loxo bi ñu ko auditionné nag ba noppi mujj nañ ko déféré pour attentat à la pudeur <laughs> ma xanaa waa ji amul connexion li lépp nag li ko waral mooy benn feebar moo ko jur laaj leen ma ban feebar muy feebaru célibataire bu yàgg moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw corona la wax lii nag ñu ngi ko donaté chambre criminelle tribunal bu Dakar Papa la ñu ne moo rey ab chinois buy wuyoo ci turu ceng-ceng ñu ko doon dakkantalee James ceng-ceng moomu nag nee nañu ab góor jigéen la doon bëggante ak sénégalais boobu di Papa Sagna subhanallah bi ñu demee nag ba yàgg sénégalais bi di Papa takk jabar bi loolu amee nag mu metti chinois bi di ceng-ceng ci la ko tàmbalee menacé ne ko dinaa wili pande weer la ba adduna bi yépp xam ne góor jigéen jàng ci noonu la ko Pape Sagna faate jam ko fukki paak ak juróom-benn ba ceng-ceng ñàkk bakkanam te moo ne ceng-ceng moomu moo doonoon patron wu Pape Sagna yëf yi nag nii la demee ba Pape Sagna xëy faat Chinois bii di ceng-ceng ceng-ceng dafa xëy woo safooram bii di Pape Sagna ne ko këram bi nekk ndakaaru mooy lakk ne ko ñëw dimbali ci saa si Pape Sagna jël taxi waaye ci yoon bi Pape Sagna dafa jënd paaka mu yeggee kolobaan làq ko ci yére bi mu soloon bi mu yegsee ba belleer ci la seen ceng ci ab station d'essence mu ne ko waaw yow looy def fii te nga ne sa kër day lakk ci noonu la ko ceng-ceng woowee ne ko na dugg ci wotoom Pape Sagna dal di dugg bi ñu demee ba ci kanam la ko ceng-ceng ne sama benn kër lakkul maa defoon pexe pour gis la tàmbali di ko lambaatoo karaay te Pape Sagna décidé woon na génn ci li nga xam ne mooy wàllum ngóor jigéen ci noonu na Pape Sagna mer ba fut kenne paaka poj ceng-ceng fukki paaka ak juróom benn ba mu jaare fa ñàkk bakkanam mu bàyyi ko ci otoom li nag ñu ngi ko doon àtte ci chambre criminelle bu Dakar délibéré bi war a génn le 28 juillet bi di ñëw moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona la wax Fatoumata Ba mi nag li mu def rëy na ne xale bu jigéen boobu dafa recruter woon ay agresseur ngir ñu sàcc iPhone 11 bu copain ëskay mbete film xale bu jigéen boobu am na vingt di ab tailleur doon àtte ci tribunal bu flagrant délit bu Dakar gannaaw bi ñu ko defee mandat dépôt nag daan nañ ko ñaari atu kaso yu mu dul tëdd yëf yi nag mu ngi xewoon la 5 juillet bi weesu Fatoumata Ba dafa piégé faram bii di Abdourahmane Doucouré nekkoon na ko ñëw gunge jëppal ci la ko yóbboo ci ab bërëb bu weet ay agresseur ne tël daa di leen songu nangu iPhone 11 bu Abdourahmane Doucouré di far bi ñaw da ngeen mën a doxaan rek far bi di Abdourahmane Touré nag bu mu demee ba toog ñaari fan ci lay soog a rendre compte ne corom sii di Fatoumata Ba da koo tegoon piège boole ko kay agresseur ba ñu fokkati iPhone 11 am bi yóbbu ci la porter plainte gendarmerie ba ñu mujj teg fam bi loxo ma ne nag maa xàlla Sénégal ngay gis ku gis jigéen tey xamoo ko xamula nga aborder ko doxaan dajeeg femme ci réseaux sociaux yi aborder ko doxaan moo tax yu mel nii moom du ngeen ci jóg moo tax ma ne jàngoro gi dal réew mi moo gën a graaw corona la wax la xew ca quartier ginnaaw raay sid na ca Pikine doy na ab xale bu jigéen buy def sem de la fa ab xale bu am 14 ans violé pëtëlëw ba mu jaare fa wan lor maanaam mëmb ñaari xale yooyu nag ñoo bokkoon benn kër bu ñu luwee gone gu góor gi daal da doon bàyyi ba yaayu xale bu jigéen bi génn mu profito def affaire am mbir mi nag mujj naa teeri ci loxoy yoon li doy waar nag xale bi góor bi bi ñu ko laajee dafa ne mu musul violé xale bi ñoom ñaar yàgg nañ ko séq xale bi nangu moom mu nangu moo tax ma ne dee leen seetlu xale yi xale yi léegi lu ne la ñu xam lu ne xale yi xam nañ ko li xale yi xam sax mag ñi xamuñu ko ma boo leen dul seetlu xale yi yu mel nii du fi jóg de mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi yeneen xibaaru buzz